kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi loolu lépp bu amee sëriñ Sidi wooteel ko bis yàlla na ko yàgg woote dafa am lu tax mu di ko woote du bëgg bis rek du namm bis mboolem àdduna ba àdduna solo ba léegi lu baax lu fi mës a def wa wax nañu war nañu waxtu wu nekk ñu di ko wanee ko wax waaye rawatina ku mel ni Cheikh Abdoul ndax jamono laaj na ko ku fekk fi jamono toll fii ñu toll ak ni ñuy doxe ak lam ca daa wax nga xam ni euh, sëriñ Abdou Lahad kenn rek la ndax bu ñu demee ba jamono ji jaxasoo nii ñu woote bi sëriñ Abdou Lahad wootu wuñ ko ngir lekk wootu wuñ ko ngir dara dañ ko woote ngir nit ñi mën a jàngat jukkee sëriñ Abdou Lahad jooje ak waxe sëriñ Abdou Lahad ji ndax suñ jamono ji la laaj ndax da daa wax naan dañ ak jamono joo xam ni ba mu koy wax boobu jamono jii Jitu na jamono ji ndax danaa wax daañu àgg jamono joo xamni kep képp ku am secteur bi nang nga ko yóbbu ci bañ bi ñëw seen te ko lengal nga bañ ag nañ jamono jojo nak kon nak ñoo ngi señ bi neena mi ngi ñaan kep ko xamni ab julit nga wala ab sénégal nga na ñaakar señ touba bes boba soko mané te amo ngat na nga ñew touba fekk si màggale lako señ sëriñ ab señ sidi mbak mi nga xëy moo koy magal xam ngi ne kaddu gogu kaddu khalifa ral ku murid la neena ñep waaj mom khalifa ral ku murid te ñew ci bis cheikh abdoulaye ñu yëkkati nag sunu kàddu jox ko sëriñ Cheikhouna Mbacké moom Cheikh Abdoulaye mu wax ci turu sëriñ bi ak mbokk yi ñun ñëpp ñu déglu. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jàkkaarloo nun ak di nu déglu ak mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ak di leen ziyaare ak di leen balu àq ci turu sëriñ Sidi mu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tey jii. sunu bokke tok fi fi wetam bisub sunu jambar je mo ñew jambar je nga xamni bëgg ga sëñ Touba seru ci won dara euh, sopp ga sëriñ Touba de seru ci won dara hmm? kooku la bisam ñew muy ni ko Ablaye Mbaye waxe ñaar fukk fan ak ñet ci korité di talata di le 18 juillet 2000 17 bis boobu nag jàmbaar ji liggéeyal sëriñ tubaar rek la fi nekke woon ndax moon waxoon ni sëriñ tubaa dafa wax yonent bi ne ko axdimuhu ilaa duxoolil janna daaril xiraari wal munaa wal minna ca jóge ne moom itam ci loolee la fas yéene moom it di ca jaar di liggéeyal sëriñ tubaar rek ba ba ba ba muy dem àjjana di ko fekk ca loolee la rek loolee la sëñ Sidi di woote moom itam bëgg nu bokk ànd liggéey fay bor boobee ca Cheikh Abdou Lahad Mbacké liggéeyal ko bis bii du lenn lu dul liggéeyal ko bëgg na nu ànd nun ñëpp wàcceel koy kaamil jàngal koy xasida luñ man defal ko ay salaatu ala nabi luñ man defal ko ay euh, istixfaar lu waay man mu def ko ñu def ko ngir liggéeyal ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké ci bisam boobu mi ngi koy sant bokk yëpp di ko yëgal bokk yëpp di ko yëgal taalibe yëpp te di ñaan loolee nga xam ne moom la sëñ Abdou Lahad sàkku ci sëriñ Touba moom it mu sàkkul na ko ci Cheikh Abdou Lahad moomee waaw kon yàlla nañ ko am te mboole na ko nun ñëpp nu maase mi ngi kiy ñaan itam lu ca waay def yàlla dindil ko ci jafe-jafe yi yi mi ngi ciy ñaan mi ngi ñaan itam lu ci waay def yàlla doolil ko xéewal ah. ba sa lu mu bëgg a def la defalati sa yablaat loola jàpp ni ci moom mu defal ko waaw ci barkeb Cheikh Abdou Lahad moomee moom leer na ko ni loolu bu ngeen ko defee yàlla ak sa yablaat dana leen defal loolee yal na leen ko defal kon nag mi ngi soññu boppam mi ngi soññu ñëpp lu waay man na ko ci def te jiital ca pastéefam ak yéeneem ci barkeb Cheikh Abdou Lahad Mbacké dégg ngeen Serigne Cheikhouna Mbacké wax ju rafet ji mu wax ñu jox sëriñ Saliou Mbacké Cheikh Abdoulaye nag mu wax ci turu ñu nekk bitim réew ak njaboot geeg taalibe yi te du ñu déglu te bëgg ko fay màggal di déglu màggal gi nu ñëpp ñu déglu sëriñ mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi jottali ab nuyoo bu jógee ci sëriñ Sidi jëm ci nun mbokk taalibe yëpp nuyoo bi nag ginnaaw buñ leen nuyoo dafa am lu muy fàttali te kenn fàttiwu ko fàttali luñ fàttiwul nag loo ci junj mu doy ah ginnaaw loolu sëriñ bi dafa waxoon naa jotal woote bi ci taalibe yi féeti bitim réew loolu nag suñ ko waxee dafa yaatu lool ba jege na dayoo kon mën nañu ko tàmbali ci Afrique ak li ko wër dëkk yëpp muy Côte d'Ivoire muy Cameroun muy Gabon muy Niamey muy Burkina ba ci Guinée gi nu gën a jeg ak Mali ba ci Burkina Faso yooyu yëpp fu ci ne daayirab sëñ Tuubaa nga fa kër gu sëñ Tuubaa nga fa ñu fay daje ñu euh, fay dajal di màggal bis bi sëñ baa ngi leen di soññi ca nañ ko baax woon defee ca euh, la ci njëkk mooy jàng xasida jànge al jàng alxuraan ak teral mbokki bi yi fa teew yëpp looloon noonu la noonu mu ko santaanee ci Afrique noonu la wàcc ba ci Europe la ko tàmbalee ca farance jàpp Allemagne ba ñëw Espagne ba këra muy dem xeloon nag dañoo beral euh, Italie ñoom beral ga nag mooy dañoo bokkoon ci njëkk a njëkk a di ko fa màggal ba ñu bari gis ne lii lu rafet lu neex sëñ bi la ñëpp roy leen ci loole nag sëñ bi ma ngi koy feddaliwaat ñoom ñooñu waa Italie fépp raison yi foofu waay nekk na ko doon defee te day def nekk fa que sëñ Tuubaa nekk fa na na nga nga yokk koo defee na ko doon te beral nag fi ko baaxoo woon a defee ca ca ca ca Bersia ci kër sëriñ euh, Tuubaa ga noonu ñu ko doon defee ñu saxawle ko ñoom nag dañoo wax ne Euh, gaaw le 22 moo gën a dëppoog ñoom ndax li ci ëpp ay liggéeykat lañ te samedi ak dimanche duñ ko liggéey bis boobu lañ ñaanoon ñu def ko fa sëriñ Bédou wax na ne dana fa yebal sëriñ moom moom nam ko daan yemale ci at yee at yëpp mu ñëw taxaw ji fa teewal ko fa taxawul fa taalib yi lépp ci bis ba loolu la ne woon nañ ko jottali ci li jëm ci Europe ak li ko wër li ci desit mooy Amérique ak li ko wër Amérique ay état yu bari la état yëpp mën nañu wax ne fu ci ne kër sëñ Touba nga fa day rëb sëñ Touba nga fa ñu fay liggéey bi boppam ma nga fa dem bu ma lë bu ma lëmee lii rek maa bëgg ñu xam ne fenn fu ne ña fa nekk sëñ bi lam fa am ci ci ay dayri am ko fa mbooloo ñooñu képp bu ñu dajoon mën nañoo liggéey mën nañoo liggéey la fay liggéey fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad rawatina bokki taalibe yi fàttaliku nag mooy fàttaliku ci ay jëfam ak ay jikkoom ndax damay wax ni sëñ Abdoul Ahad dafa jaboote woon tarixa waaye cheikhul islam waaye nag dafa woon tarixa waaye cheikhul islam la ba tax na bu ñu delloo ci moom dañuy gis ne jëmmula joo xam ni dafa tolloog jamonoom waaye dafa mel ni dafa weesu dafa tolloog jamonoom ci naka ndax bi mu fi nekkee lépp loo xam ni suñ njariñ la tey ak ëllëg loo ñu leen daa digal te ci la nekkoon ba ni ñu ko noppee gis li tax mu nekk koo xam ne dama naan dafa jiitu jamonoom ba fii ñu toll nii tey jii fu waay mën a nekk te bëgg a jariñu tolluwaay boo mën a toll boo digloo ay waxam seetantal ko dana la niital yoon yoo xam dañu ci génn bu baax te doo gaañu doo fakkastalu kon kooku moo tax mañ dafa jiitu woon jamonoom la ma ci jox misaal nag mooy fii jamono ji tollu tey ñu dellu rek ci ay lu waxoon ndax dafa waxoon ni ñaar buñ dee ànd di wut àdduna te mënuñoo juboo am na ca ku bëgg a nax moroom ja mu dellu ñaar bu ñu dee ànd wut yàlla te mënuñoo jubut am na ku ci wutut yàlla kon loolu ay waxam te jamono ji mën nañ cee tegtaloo ci loolu kon nag bañ a guddal kooku daal bisama ngoog ah mbooleem fu euh, bokk nekk ak noo bokkee xam ne sa bisa ngoog fu wëlëre nekk sa bisa ngoog fu am di jàmm nekk sa bisa ngoog bis bi nag kilifa yi njëkk a wax matale nañ lépp ci wàllu woote ak wàllu denkaane ak li war a def bi ci des nag muy ñu ab Lahad yi ndax tur bi mu ñu méngale te yàlla dogal ko suñu digganteek moom sant nañ ci bu baax a baax a baax te laar yooyu kat yim ci fekke doublé wu ne ay junni junni yoon ndax laataar yee bari ku ne rek am na kuñ la tudde yéen ñi itam kenn ku ne sa kër laata nga fa yoo xam ne fekkewul sëñ bi kon nan boolewaat suñu bopp te dajalewaat dayirab laxat yooyu xam ne kat mbooloo lañ te takku nañ nekk ci suñu ginnaaw sëriñ bi loolu suñ ko defee moom de bëggoon nay turandoom lool fonkoon na leen lool fu mu nekk it turandoom moom fu ne fu mu ne jëf na ci baatinam jëf na ci saayiram kon rikk waaye nañ ko jéem fay bor bi beneen bi ci des sam bis bu toll nii bu ko sëriñ bi dee woote woo ci kil bokkam yëpp woo woo ci taalibe yëpp mi ngi koy yëgalaale borom réew mi ndax am réew buñ ca dee def lu mel nii kene ca bopp ba ak ay ñam yilif serigne bi neena na mi ngi leen ko yëgal xamne ne bis bi bisub senegal la bisub serigne Abdou Lahad la mi ngi leen ci talal loxo di leen xamal ne bis bi ak setina seen bisa ñi am mbégte ci bis bi ñuy woote di ko yëgal ku seto ci maam Maharam ak seti serigne bi seti serigne Mouhamadou mustapha ba ci serigne Mouhamadou murtala li dalay ci soxna May ba ci soxna Fatija ak mbooleem cheikh si ak mbooleem talibey ñi ngi leen di bis bi muy bisub conférence bi nga xam ne ñi ngi ko baaxoo amal bu nee ginnaaw suba la màggal gi war a tolloog dimanche le 16 ren nag ñu duppee ko Serigne Abdoul Khadir di ñaan sunu borom képp koo xam ne teew nga ci bis boobu yi ak bisu màggal gi sunu borom faj say aajo ndax Serigne Abdoul Ahad kat képp koo xam ne Serigne tubaa nga yaakaar bis bi war ngaa xam ne sa bis la ndax ku ne xam ne fi mu tegoon sëriñ bi ak lim liggéeyal sëriñ bi ku ne teg na ci sa bët kon nag ñun taalibe yi bisam mooy suñ bis képp koo xamante nii Serigne nga yaakaar war nga ko delo ñukal bo kon nak ñi ngi ci soñi mbolem daaray alquran yi ak kureeli xasida yi kenn ku ci nek bo dege wote bi nga xamne yow la cee saw sas moy nga tambali di jang alquran ak di jang xasida ba ba bis ba loolu mooy cee saw sas bu bis baa nga and ak sa mbolo yeen ñëpp ngeen ñew Touba ko ak serigne bi ñi ngi ci soñi ñëpp di ñaan ñëpp yoonu jam ak salam tanki ak delu gi lepp di ngeureumal serigne Touba. wax ji mu wax ci turu set yi waye nak شيخ عبد الله بسم كوشي نيو القران مولاي غاسنو مولاي غونغي كون دالي كاملي كي دافارون دالي كاملي با نين مانا جانغال القران موم نين دي جانغال لب لو تي واي من تيبليم تي دالي كاملي ييب وونن لين يالا فاي نكو نك جخا تي القران بيم واتي با نيو تي موم تي موم لا امي كير واي موميت مو دك القران فاو موم كيب لا القران وور كون يالا فاي نكو سيرن توبا فاي نكو واي لي باخ دي باخ باخ dem bàyyi fi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du ràpp du raaf du réer sëriñ Sidi boo nu ñaanalee benn ñu ñaanal la junni ndax fii nga toog ku gis appel bii nii nga def say rak nii nga def taalibe yi def ko Cheikh Sidil Maxtaar sa wa sa sa sa mag ju baax ji too doo rak doomam ji toog nii bi liñ daataa wax dara nga ko ubbil ci turu sëñ bi ba noppi loolu Mbàkke ñëpp a ngi lay ñaanal waaye nag di ko yëgal président de la république premier ministre ak membre gouvernement bi waaye ministre de l'intérieur nag ah day doomi sëriñ bi di kenn ci moom Abdoulaye Daouda Diallo sëriñ baa ngi ko yëgal di ko yëgal nag ñi yëngu ci parti politique yi ñëpp kër Cheikh Abdoulaye ñëpp ko bokk kon woo na ñëpp bàyyiwul kenn nu ñaan mbakke nga yàgg téwér waaye nag li yàlla faye jamono bi dimbali leen ba kenn mënut a fàtte Cheikh Abdoulaye li Cheikh Abdoulaye am ci band kenn ko rajo bu tàkk bu ne ñaari fan ñett nga dégg bandu Cheikh Abdoulaat su koy wax yow mu mel ne tey kon waxi Cheikh Abdoulaat du raaf du rap du réer jëfam noonu la mel bis baa ngoog ñaar fukki fan la ak ñett ci weeru kori di le 18 ci weeru sulet wii nu nekk sëñ bi bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn képp ku feeñ ci bisu Cheikh Abdoulaat ci lu baax dootoo nëbbu bu kenn manki na ñëpp wuy sëriñ